وعليكم السلام ورحمة الله فهاكم هاسي اللي الصفاء عن من كل داء وعيسنا عسيزا من مكاين جميل أهداء بركة برمتبا يا رب بالمصطفى المختار من مدار شفيع أمتي في البعد والخدار يا رب بالمصطفى مختار من مدار شفيع أمتي في البعد والخدار علي سلبي تاس لي من عليه بي في الآل وصحبي واح سمنا من الضرار خذوا مات المصطفى أما يجوز العبادة واحسنهم من سراري واصرف لخيرهم سيطان في أباد ولتات فيهم كل من يسد من البصار والتسري في دان مرد الجميع وسريف لهم مجيبا tillam ni wal busaari wajaal xulu basaawin islaami fi abadin waltaak fihim kullama yufdi ila alxaraari وسالي دابا بتاس لي من بلادات له تماولت أجو بسافو والدراري وسل دابا بتاس lii علي بمان لو تماولت عجو بساف ودراري أدي شيخ الخديم jërëjëf sëñ Cheikh macha allah macha allah ah sëñ Cheikh suñu xool seet na loolu salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ndamoo seen chaîne bi di seen louis TV ak jàmm bu ngeen gisee ni sëñ Cheikh ubbee ngeen xam ne macha allah lu ko waral mooy ñaar ràkk yi nga xam ni dafa dafa dafa jub si waaw muy euh, màggalu Cheikhul Khadim donc ñu nekk fii ci diwaanu Ndar nara amal plateau bu am solo dégg ngeen ni ko sëñ Cheikh Oubé léegi léegi ñu lay siyaar bu baax a baax sëñ Cheikh ñu ngi delloo seer bu baax a baax jox sa wàccuwaay wallaay ñun la war daanaka li nga jot a daaneel fii moom mhm. xam naa ab tàmbale la rek mhm, dëgg la suñu xol seet na si loolu wallaay ñun ñoo gën a bëgg waaye wéetuñu benn yoon ndax ñu si ànd aussi suñu papa mhm. muy sëñ Moutala Seck mu te mënar waxtaan ci mhm. ku tedd eh, ak sëñ Bàpp ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay siyaar bu baax di am bété ci ci ci tew bi nga tew fi di la jox sa waccu way ci bis bu tedd bi di la ci ziar di ziar jàngkat di mag yi nga tek ci jotaay bi ne mbir mi moom ubbeeku na ci xol bu sedd guy macha allah ndax ni tambali xes di sëñ Tuubaa yi jëmale ko ci ñaar rak yi nga xamni ci la lépp tàmbale macha allah fa tabarakallah jere jere allah yóttu ni si nag ndax ñu ci andu ci ak pap Cheikh ñu ngi lay siyaar bu baax ba sëñ pap

seen bi nga xam ne mooy seen louis TV di la jox sa waay di la siyaar yow mi nga xam ne yaa waral yëf yi mm-hmm. di la si jox sa wàccuwaay di siyaar sunu jur wii ñu bokkal yëf yi muy Cheikh Mouhamadoul Mourtala mm-hmm. di ko jox wàccuwaayam ak sunu waay yi nga xam ne ku nu xam xam nu si moom muy Pape mm-hmm. Cheikh Seck di ko jox wàccuwaayam moom it ak mboolem kuy béggee seen bi rek neen ko waxee li tax ñu tàmbalee xasida gi daanaka li waral gàllankooru jamono ji yëpp rek muy mbas mi fi xew te sëñ Tuubaa tëggee ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi fa haakum haasil abyaat sifaan min kulli daahin wa is nan asis nan makaay jamil ahdaay nga xam ne moom day saafara mboolem jàngoro di dàq lor di dàq balaak lépp rek moo waral ñu barkeel loo ko siyaare ko ñëpp di ñaan yàlla nag si li fi xew ci réew mi yëpp suñu borom dàqal na ko ci barkeb Seexul Xadim ba nu mën a delloowaat yëf yi nam meloon fépp rek barke Seexul Xadim. te na nga nar a bégal bégal waaw waaw tey moom incha allah rek dañoo nar a bégal soppe yi moom ba ñu yàlla ci xasi ah, day bu ko defee sama gars yi nga xam ne nekk ci caméra caméra yi moom nañu ma moytul caméra yi rek ah. waaw bu leen ngi lay siyaar bu baax ñu ngi siyaar mu mel mu ne tey fi nu nekk nii day bërëb bi nga xam ne bërëb bu bu bu am solo la mhm. ndax ñu ngi ci kàddu gi mhm. amaana am na ñi nga xam ne dañ koy dégg te xamuñu ko mhm. tey boo ñu ko doon résumé rek ci lu gàtt. waaw ah. nan nan nan ngeen ko mën a tëkkale. sang bi jërëjëf. kàddu gi mi ngi tàmbalee ci nattuk sëriñ bi. ndax keroog ba nu jëlee sëriñ bi. mu war a ñëw ndar te jóge tund jeewal. àggale fa asmaa ahlu badrin ci la ñëw. ndar bi mu agsee. ci ndar. wàcc ci kër suñu wajuru tedd wa. fa la yend suñu Ahmed Kureyshi. Sering bisa, nena nee na yendu liko li ko waral ngir lam càllaloo ca ñoñ xuraysin bi biñ ko indee muy première giseem mak tubaab bi ci lañ ko indi fii résidence surveillée maanaam ñu toogal ko fi toggoo xam ne daa amuk ab ni togal fi fii ban soxla la booba daa fekk booba tàggat nañu xeeti yëpp nga xam ne jumtukaay yi nga xamante ni yëpp nañ cee lor sëriñ Tuubaa ci lañ indi fi fii la nekkoon barab bi nag da ko bëggoon ndax fi la daan yendu fii ci kàddu gi moom Serigne Touba mm-hmm. bu Moussa ne jógee ca nga xamante ni fële nga ko boole woon ak gaynde gi mm-hmm. bu xëyee day jaar jàppukaay mm-hmm. bu jógee ci jàppukaay bi rek ñëw ci kàddu gi fi la daan yendu moom Xaadimu Rasuul loolu tollu woon na sax ba ci tubaab bi nga xamante ni kéemaan gi ni kéemaane waraloon na duus yii nga xam ne moo ne ci suñu ginnaaw nii duus yooyu bëgg bu Serigne Touba bëggoon barab bi moo taxoon ñu defaloon ko fi militaire yi nga xam ne militaires yi booba bu sëriñ bi toogee rek dañ fi nekk di tuur ndox ak def lu rek waaye Sëriñ Tuubaa mosu leen a ges ndax caacaay rek taa ak caacaay rek dëgg la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mhm. dégg naa dégg naa ci mag mu baax may wax ni kaddu gii fi la gaynde jëkk fekk sëñ Tuubaa mm-hmm. ni ko lu yàlla bind Cheikh Ibrahima la ci gën a bëgg waaye ni mala maa jëkk jébbalu ci yow sa jiy fatim benn tey moom xaadimu rasulillahi sallallahu dëgg la de dëgg bis ba fa ndar koo wax sëriñ mu naan la man doom sëriñ mm-hmm. dootuma wote kub sëriñ ku dul bamba xaadimu rasul doomu moom la laay wa rasulillah man mbàkk maa di seen ndëneel ba yëgg ci yàlla ak rasul bëgg loonu buur yàlla keroog <laughs> ci bis boobu ñuy teeru muy ñaar yi dëgg la siggil na njool màkka keroog ci bis bii ñuy teeru muy ñaar rakka yi yëkkati alquran keroog ci bis bii ñuy teeru muy ñaar rakka yi taxaw di xaadimu rasul kon sëriñ bi daal mm-hmm. ah ñu ubbee loolu yi nga xam ni muy pas-pas yoo xam ni am na solo lool ndeysaan tey lislaam ñoom ñëpp war nañoo yëg ni mm-hmm. lislaam ak bisub lislaam ak bisu ndamub lislaam mooy ñaar rakk Sëriñ Tuubaa lay ndeysaan ndax bu fekkee ni fu waay taxaw julli siñ Tuubaa ko waral mm-hmm. nga may ma rek ndax keroog mu muy taxaw ca bureau ba tubaab bi wax naan ana mu dabbirul umur keroog sëñ tubaab bi muy bi muy def jéegoom yi jël baaraam ba teg ca jéba nan ko kas sabta ku fen nga julli fa ñaar rakkaam yooyu moo waral bis bii ñu teere kon sëñ bi fa tabaaraka dëgg la sëñ dama lay dama lay dama lay permettre fu la neex fu la nag ndeysaan kenn doomi mam bu dara jaal sëriñ bamba ay sëriñ Tuuba yow yaa darajaal ah nit ku ñuul ba ngeen di naw ci lu wér taxtu baami ah dannu ni na woon xeeti jaam lanu kenn du naw sëriñ Bamba doomi ah mam soo darajaal sëriñ Bamba Sëriñ Tuuba yow yaa darajaal ah. nit ku ñuul ba ngeen di naw ci lu wér tax tubaami ah dannu ni xeeti jaam lanu kenn du nu naw Sëriñ Bamba tax tubaami ah ay esclave di koy boobee ba tey nit ñu ñi ay ñoom ñëpp tu Touba yi ki leen teral Serigne Bamba borom jaam ñi Serigne Bamba Cheikhul Khadim Mbacké borom tukki bu sori bi ci sëriñ ci budun bi. sëriñ bamba. sëñ bamba. Mbàkke. bu sori bi te metti lool. lool te yàgg lool. lool waral. màggal gi waral ñaari rakk yee kenn du doomi jaara Sëriñ Tuubaa biru ndari tontu ah. allahu ahad toftal ca allahu samad lam yalid walam yuulad kenn du doomi maam walu nan ko biro baay Serigne Bamba Serigne Touba Mbacké wóolu nan ko biro nder baay Serigne Bamba Serigne Touba Mbacké borom urju satan xabidatan mahal kitabi wa rasulullahi samaytuha jalibatal maraxibi fi haajilin ka haajilin li raxibi wóolu nan ko biro ndar est que Seex hmm. sëñ Bamba wool nan ko biro ndar gaaña naan ko xaadim lii lu mu naan wetal yàlla rek ma war Bamba doomi maam jaar la mu tontu biro ndar baay. Serigne Bamba moo ko la mu tontu biro ndar baa. Serigne Bamba moo ko yóbbu Mayomba. weddi ñoom la nu bàyyi fii nu toog fii. fii ah. nu yóbbu doon maam Dia. ñaari rakk yee fandar ñaari rakk yee fandar ñaari rakk est-ce que màggal gu dul màggal Tuuba ñaari rakk ndar ñi moo ko waral sax Ah. sëñ Bamba dim rasool man de maa ngi fi yow baban ma jaale ay mbakki soo ma jaalewul bal na ay sa kenn du ma jaale ah. Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba ku jaamu yàlla tey bañ Bamba man maa la ah. ngir yàlla ak Mustapha dun jëf lu la mu wax moo ko waxoon yaquudu nii wala yaquudu min nii illa li man sirtu bi isni min nii hmm. Serigne Touba baratali fil arakati wa sukkoon rabbil lazi xaad xaadani kun fa yakoon adiya Seexul Xadim bu yaboo rek ngeen ngeen ngeen wutal sëriñ benn kii benn benn grave boo xam daal day ñëw remplacer parce que man man dama ragal lii. day saar ëpp naa xalaat ëpp naa xalaat sëñ Cheikh lii lii du ma ko continuer dañuy tàmbali rek sëñ Mourtala mu am solo rek. ah moo waral ñu dugg foofu. Ah, sëñ Ma Ndiaye. café gi na ñëw. <laughs> lii moom lii moom lii moom bu ñu ko day saar waat naa ko ci sëñu moom saa yi dama fay jaari faatu fa yàlla rek. ëpp xalaat sëñ tay bu ne bu ne ñaara kay hmm. sëñ Cheikh mayna la faux vert fu la neex dugal deug la yow fu la neex rek xuusal <laughs> est-ce que ken laal la <laughs> bu ne ñaara kay amna fu mu tambalé hmm. ba nu mu egsee ndar hmm. ci la bëgg ñëw ci euh ñaara kay ñëwal ma jaay bo xolé ca tàmbali ga mat ñi fi nekkoon dañu daan def bamba mos xam ka gi la mat ñi xam nañ limay wax dañu daan def bamba mos xam manam di wut jëmm joo xam dañ ko daal defar ba mu niru jëmmi sëriñ bi nga xam ne jaar-jaari sëriñ bi jamono yooyee dañ ko daan nataale def ko lu mel ni film maanaam tuddeewuñ ko Bamba mos xam biñ koy def ci jamono Cheikh Abdoul Ahad suñu blaat ni leen daal loolee dama bëggoon loolee ñu daal di koy bàyyi mooy mos xam gi fi amoon ndax booba demoon na ba doyoon na waar lool gannaaw gi la mag ñi fi nekkoon ci ndar nga xam ni tey Abdou Khadir Thioune nga xam ni day ku baax kër Mame Mary Ndiaye mhm. ñaar rakk yi ñu ngi ko jëkk waxtaane kër Mame Mary mhm. ñoom ñoo demoon bi ñu demee ci ñëpp laat ci ñëpp laat teral leen ko ñoom ñoo dem bi ñu demee mhm. ñoom ñoo xalaat xalaat gi ñu xalaat seen biir bi ñu xalaatee daal ni kon day amul lu ñaar ràkk yi Sëñ Tuubaa yi wallaahi ndeysaan ñaar rakk yi Sëñ Tuubaa yi daal kon nañu fexe ba di ko màggal dëgg la de keroog ba ñu koy waxtaane suñu wayjur bu baax wi ko jëkk yore te làqu ndeysaan laata Amet Fall di ko yor sëñ kii damay fàtte tur bi sëñ kii jéey ndeysaan kii te baax lool mooy kilifa kilifa gi ko yoroon moom booba mu ngi ci administration bi di liggéey moom mi ngi liggéey ci administration bi ci leen ni loolu comme que waxtaan nan ko loolu faw ñu wutal ko ay këyit ci leen dem taxawal këyit waaye li ci gën a yéeme sax mooy mbir moomu bi ñu ko defee nga xam ne sëñ Tuubaa moom lu ci nekk rek moo koy defloo ay gaayam ca waxtu wan ko war a defee mm-hmm. nga xam ni ba nu ko defee dem yëgal ko si Abdullah ak ñoom sëñ Sohaybu bu ci gis-gisu waa Ndar ci gis-gisu waa Ndar ñoom ñoo mm-hmm. xalaat ni mm-hmm. danoo war a dem kon jëmmal ñaari rakkay sëriñ Tuubaa ma ciy gërëm ku mel ni si Abdullahi Sarr min na guj te bëggu te feeñ ci dara yàlla na fi yàgg te ñooñi dan ngeen ko taxawu te jamono yi nga xamanteni ni buñ musaan di julli ñaar rakka yi karapit yi dañ daan romb ni nan lu xew mhm. lan mo xew mhm. ñu nan murid yi julli fi ñaar rakk mhm. ñi romb ni di ree te jamono yi defay na lepp leewon ni ñaar rakka yi am pass pas-pas bu am solo bi ci feñ Cheikh abdul Ahad Mor mu bax mi nga xamni ne ma ñu ànd ak seigne Modou mustafa kër ba muy defar jumaa Touba tam ko lugu seigne Mat Kabir dafa demoon Sëñ Blaat ni ko Mbàkke boobu dafa tolloog moo waroon moo waroon a dem màkk waaye bu ñuy Sëñ Blaat daan ni ko Mbàkke man de damaa bëggoon a dem màkk Sëñ Blaat ni ko dem màkk googu Sëñ Tuubaa defal na la ko ci ñaar rakka yi ca Ndar keroog demul màkk ci ñaar rakka yi la toog euh, at moom yi kéemaan ngay xam ni ñaar rakka yu kon dafa gën a feeñal rek ni lu jaamu yàlla jaamu yàlla ko gën dëgg la de ndax Sëñ Tuubaa fu mu jullee mm-hmm. da doon da doon wone ni rek mm-hmm. du jaamu yàlla jaamu yàlla ko gën te Serigne Touba bu fekkoon ten tey nasaraan bi na mu defoon gars yi ni anaa mu dabirul umur mm. bu ko ñëpp nangoo nan def Espagne def nan ko Sénégal daal di kañu ni moom ko képp yàlla ndax Espagne moo fi ba bëri ëppooni jumaa ki jàkk waaye gars yi dañ faa jaar fexe ba ginni seeni ngëm def fay église yàq fa diine islam loole nag xadiima rasul mi nga xamante ni moom moo fi taxawal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee ci biirum Ndar ba mm-hmm. ni tubaab bi kasabta kuy fen nga mm-hmm. qul allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akbar julli fa ñaar rakkam yi bi mu waaye salle bi ñëpp a génn bàyyi fa sëñ Tuubaa nekk af euh, nekk Sénégal nekk Afrique nekk ci moo ñaale woon waaw ku ñu jël rek ku dul moom képp moom képp moom si moo ci taxaw mm-hmm. ndax sëriñ bi mm-hmm. def ci am loo xam ni war nañ koo sante bu baax mm-hmm. dëgg la ndax tey sëriñ Tuubaa bu ñëwuloon jamono eh loolu kéemaan la <laughs> bu ñëwuloon jamono loolu kéemaan la kon damay wax ni xeet yi nga wax ni dugg nañ ci diinal islam fi ñu toll nii di mëne li ñuy mëne ak di def kon dugg nañ Sénégal yàq bu yàgg dëgg la Sénégal dañoo war a sante bu baax si ko wëdd ndax boo xoolee réew ci Afrique yëpp tas na mhm. te lu ko tas ñàkk ngëm gënu ñàkk ngëm ak kañ wóolu mhm. kon bu nu amee ku mel ni xadimu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mhm. mu taxawal diinal islam diinal islam jaral ko mu julli ci ci ci géej gi ñaari rakkaa julli fa takkusaan julli julli julli fa julli fa takkusaan ak tisbaar mhm. wëlbati ko julli fi ci biram ndar ñaar rak wane na ni kon duñu jaamu yalla jaamu rek ko gën kon bu jaamu yalla ah. daf wax lil Mustafa nawaytu maay jadidu ah. surtout xaaraaw yi dara ñor dara ñor ko nu rek yeesal li nga xam ne la fi moom la fi rek moom la fi Seydina Muhammad bay dëgg la bala nga ñor yeesal yeesal suñu rek kan Ahmadou Ndiaye Mabé hmm, suñu Ahmadou Ndiaye Mabé ndeysaan suñu Ahmadou ba muy ba xam nga sëñ Moussa Kouaké wax ci jaaw Chakor naan mhm. Ahmadou Ndiaye Mabé yi moom mu jëkk dugal ci néegum taax dëgg la sëñ Ahmadou Ndiaye mhm. keroog ba mu naan da ñaanal dàppal ngir dem ci nasaraan bi woon que ni Serigne Touba du koy tooñ kenn mhm. Serigne bi daa mu njëkkati assurément abraat jox ko ni ko moo seede diggante bay dem dooyu faatu dinaa fi kàndar gi lii ayaatu keroog ba Serigne Touba defee juróom-ñetti ati gabam yo ba dellu ñu ko yóbbu gànnaar ci la <laughs> لكن ما كل مختار في سير سفر خرك يوم صدسا من النزار لكن ما كل مختار في سير سفر تاريخ بموي جنيك نياتي تيمير اك ات أنيا نياتي ليمبيلي وور سي نين ما ديغلو تاي ما ديلو ييتك ndax ñi nelaw seen xol delu seeti su ngeen ma deglo tay ma delu yete ndax ñi nelaw seen xel dellu seeti kuréeri mbir day laaji ka xam la mu xamul laaj leen mbiramu ki leen amal lu kenn amul sëñ Moussa Ka neena

lu mu fi jot am. Mm-hmm. ak li mu fi daj. Mm-hmm. ndax ban ko indee ndar. Mm-hmm. jour yi fi am yëpp. li mu fi daj lépp. dafay baax ñi koy fàttali. ñu koy xamaat. tey boo amoon ci li nga xam ne da nga koy génne. ngir ñu mu ci bàkkeelu lan lay doon. sëñ bi dara gënt doonu tiis. sëñ bi xoolal ma jëmm ju sell ju tedd jooju nga jël ab néeg boo xam ne sëñ bi néeg bi ni mu mel nga jëlu gaynde gu toll ci digg lëndëm tey fàdd. gaynde gu toll ci digg ndëndëm tey fàdd nga jël ka jël jëmm ju tedd jooju dugal ko ci biir hmm. waaye boobu Serigne Touba ci boppam xaadima rasul hmm. bi ne jàkk gaynde gi rek gaynde ki def ni jàkk Serigne Touba boobu ci keroog Serigne bi dog benn tàndarma la jox Serigne la jox gaynde gi hmm. waaw gaynde bu lekkee tàndarma moo ko sañ moom képp a ni nuub <laughs> ah waaye sëriñ bi tubaab bi warta woon bàyyi sëriñ tubaab bu yàgg de dëgg sëriñ tubaab bu amoo bu amee jom bu amee ndax sëriñ tubaab kat gaynde te yemul foofu ndax sëriñ bi mhm. bi nga xamee ni gaynde gi tëdd na ci wetam di nelaw beneen tubaab bi bi dugg siwaat mooy nataal bii gaynde ko da ko song jëflante ak moom dëgg la keneen ko dugg siwaat keneen ko ñëw buñ déggatul bur yi ñu ni c'est fini moo tax tubaab ne c'est fini rek mooy jeex a tàkk <laughs> kërëb ban tubaab bi ni c'est fini ni kaccat bunt bi gaynde gi wuti ko mu naan seen tubaab pardon dëgg la de pardon pardon dëgg la de pardon bi sëñ Tuubaa ne ana gaynde gi lu mu la def mhm. gaynde gi dellu fa mu nekkoon góof mu naan sëñ Tuubaa merci merci sëñ Tuubaa bind wa merci boo xoolee xës bi sëñ Tuubaa yi jërëjëf wa merci daf mel moom képp a wax si baat benn baat boobu la sëñ Tuubaa mos a mhm. fii dëgg la merci mhm. waaye boobu tubaab bi bu gorowoon woon bàyyi sëñ Tuubaa mu dem ballay si lëg sëñ Mbàkke Maaram waaye boobu nag àllima nii rahmaani fi safina bi anna nii xadi anna nii xadi musil madina boobu faaw mu dem dëgg la dem gi mënta ñàkk dëgg la mënta ñàkk de ngir bu loona dem gi wolof na saraan te billaahi ñëpp dem ñiraan dëgg la de kenn du suñu waaja ni may na ma dalul islam billaahi yan leen ma jur leen ma dinaa ko leen ma jur leen ma dinaa ko jaam loolu suñ tuwaar donc ma sa wax suñ tuwaar donc bu doon bu doon njaboot rek suñ tuwaar du génn mbakki ba dëgg la dëgg la de budon ak njabot dong nga tax ñu dem señ bi du genn du wess mbakki baay deug la de dëgg la de da mel sax li li yep lu ko waral djublu mhm. ci mbolo djublu mhm. ci dara mhm. dara waaw xettali jaam ñi képp ko taxoon jug jullim ci géej gi sax defey wu ko keeman wallahi day wone ni jeex gi mu jeex ci yalla mom señ Tuubaa day day dem ba jëmmi sayidina Muhammad ga ne ci mom sallallahu alaihi wasallam mm, waaw ndax señ Tuubaa bi mi wacc ci gi nek fa di di di xutba géej gi di ko taalif déedéet daf ni tas der wàcc ci géej gi sëñ tubaa moo wax ak sëñ sëñ tubaa ci boppam hmm. moo wax ak jibril jibril daal di wax ak jën yeeg ngenaaw yeeg ndox mi lépp jaamu yàlla ñuy teg sëñ tubaa sànni der ba kabar dëgg moo tax sëñ tubaab bu mu jullee ba noppi lu tax tubaab bi xam ni kii ku fidèle la mhm. dañ ni ko yow lu tax yow neewoo der bi ñibbil Sénégal mu dem yoonam yow daal billaahi yàggo rek sëñ tubaab da ko def ba pare dellu si buto ba toog sëñ tubaab mos ta xool na saraan bi diir gi ñu koy yóbbu ca gabon tubaab bi demoon na ba bu saana bëgg sëñ tubaab xool xar kanamu sëñ tubaab mhm. day tudd Seydina Muhammad ndax boo ne Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek sëñ Tuubaa di siggi daal di lay xool daal ni sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. dong tax ma xool sa xar kan. dëgg la de waaye lu ko mooy sëñ fan nga jëm. kañ dañuy dellu si te dama lay rey lañ ko wax dan lay hmm. rey kañ dañuy dellu si bu ñu jógee fii fu ñu jëm kañ dañuy dellu fu Sëñ Tuubaa musu te digganti yooyu cay cay moo gore li si jombaay di wax rek lépp ngorom sàmm ngorom wéetul ko ngorom billaahi dellu si te dara te dara fóot waaye Cheikh Moustapha Cheikh Amadou Fadal dëgg la de maamu Cheikh Bakram dëgg la de kenn du moom jëmul yooyu billaahi barke borom temps bi daal ko xoolal ndax sa day <laughs> rakka yi boo xoolee yi ci xew sax sànq rek ku baax ki mi ngi koy junj yàlla na fi yàgg Mbàkke jàngal na ñëpp ak taalibi topp na ay baayam topp na ay magam hmm. te yar na ay rakkam hmm. te boo nekk jàkk rek bu dee bëgg sëñ Tuubaa moo ko gën a bëgg ñëpp képp bu dee ak taalibi moo ko ëpp ñëpp taalibi bu dee yërmaane moo ko ëpp ñëpp barki sëñ Tuubaa wallaahi wallaahi kon bu fi nekkee lépp xewee ci kanamam sëñ Tuubaa feeñ ci jamono ndax bi ñuy defar Masaalikul Jinaan kat ubbi aya ba xol li seigne touba bindon xamni seigne touba mo delu ci taxaw juma ji ñaan fa lam fay ñaan deug la de kon mbas mi gi yëpp yàlla na fi dañ ci barki si mun taxaa mbàkk bu baax mun mu mun ñu jeexal waye nag ñaar rakka yi moom mun ñu jeexal waxtaan bi mhm. te duñ dugg si maam Saraama Fall bi nga xamni wara lepp eh, ndax ndax ndax ndax da ci da ci da ci jouer rôle bu am solo keur mhm. kër baye bi hmm nga ni dëgg la ma ni kër jëgg bàyyi jee Cheikh nga ni deug la Cheikh ibrahim Fall micro bi <laughs> la la la Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kenn du maam Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra yaa wane siraatal mustaqim ilal jinaani laay bur yàlla mooy karim si xibra yaa xar sunu xol def ci liimaan yàlla la baaxe def la ngay xutbu samaan si xibra yow ku la gëmul ba faatu kooka yowmal xiyaam du tabbi aljannaatu si xibra yaa tax nu tàbbi aljannaatu ngir yaa nu xamal doomi jaara poroxaan si xibra sant la war na abada ay seex bamba ak muhammada si xibra faal jaraw lakk yow ku bañ danan ka lakk faal yowmal xiyaam faal kun fa lakk dara bañoon ci xarnu bee isa ji fatim pendalat suka be ngoone jeey dameel diccu fu njongu dameel samba yaaya faal maami sëriñ seex ndigal faal maami sëriñ seex mbawar faal maami seex sërif asan faal sama waaja seex ibra addi seen yow def mu nekk nii <laughs> xam naa bu yëpp war a jël chaîne bi may la ko rek. ëpp naa xalaat <laughs> ëpp naa xalaat bi jeex. ah ëpp naa xalaat. yaram xoli seet na de. dëgg la ndeysaan Serigne. Mhm. barke Serigne Touba ëpp naa xalaat de xoli seet na. yal <laughs> na yàlla fay Serigne Touba. doole xasaay taa bi nag xoj nañu. Mhm. waaye doon bëgg rek. Mhm. nga laaj si diggante sëñ Touba. Cheikh Ibrahima Fall. bu ko defee sëñ Cheikh daal di wëyee rek. ñu def ñaan. ah fa tabaarakallah. sëñ Cheikh fi mu fi mu jaar rek mottali na way wax. ndeysaan ndax. fi ma gën a daaneel ci Cheikh Ibra mooy sëñ Tuubaa dafa mu a laaj Cheikh Ibra ni ko. Cheikh Ibra xoolal sa bët loo xor rek yaa ko moom. yaa ko mu ni ko Mbàkke defal ma ma lay xor rek bu ma gis kenn ku dul yow. ndeysaan. Mbàkke bu ma gis leen di ko moom di ko moom wala ma koy moomal sama bopp. ndeysaan Mbàkke yow rek la bëgg. ndeysaan nga xam ni Cheikh Ibrahima Fall mooy arrahman muy yërmande yàlla. Mm-hmm. moom la yàlla yox arrahman. muy mm-hmm. yërmande. dëgg la de sëñ bi bu leen fàttali alquran moo ni lëxal nit mu lekk moo ko gënal nga tabax la ko junniy juma dëgg la ci la dëkk de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxoon ca Madina lan la wax jàppante leen yërëmante leen bu ëllëgee yàlla yërëm leen dëgg la de wallaay lépp nag Cheikh Ibra ca la tàmbale dëgg la de tey ku tiim nit di ko yërëm Cheikh Ibra tax dëgg la de tey dafa boole ñaar yaa ko wax mhm. ku doon buur ñaari yoon ni ko fa tegg doon la nga doon ñeenti yoon ne ko fa tegg sa néegu ndey sa néegu bàyyi fu na ci bàkk ngay buur ñi fi nekkoon ak fi nu jaar ñëpp daa mel bu ko neexoon toog rek bu ko neexoon sëñ bi day falu buur ñi koy jaay wallahi la azim waaye dafa dëxañ lépp waaye ab taalibe déet yow ma alastu mhm. fa la xamoon tewoon sëñ bi dëgg la dëgg la dëgg la teew ma alus dëgg la de bi kenn namm loo xamul man sañu maa toog fii nan namm naa France te mosuma faa dem kon sama mbokk yi ñoo may jëkk yóbbu ma ca fan seeti ma doon <laughs> kenn du namm koo xamul man sañu maa toog nan namm naa États-Unis Cheikh ba muy wër sëñ mu ko xame ah? Ka mhm. ni ko yàlla sama borom ñoom ma sëñ Bamba moo moom raasi ko raasi ko nag mooy wëri ko jox ko say pexe jox ko say pexe ba mu demee tey ba Dakar ngi seeti Bamba di fa xaar. di fa xaar wallaay nag suñu waxtaan turee fa jaar ñang lay xamee. lay xamee pexe ndeysaan dégg la de. ah xoolal bu mu xëyee ba tisbaar. wallaay suñu waxtaan turee fa jaar Serigne Makhtar Touré fa jaar. ndeysaan ah, ndeysaan ah nee na Serigne Makhtar Touré leeram nga leeram nga daal di ko yoon. ay pexe nee na Makhtar Touré. Uh-huh. nga nga yéen a jur lu mel ni ab yóbbante. waaw waaw yéen a jur jëm Mbacke ah, Kajoor yenu ko jëm Mbacke Kajoor Cheikh Bamba yéen ko ci buur sëriñ bi naa ko Cheikh Ibra topp tey fekk ndeysaan ba seen fa Cheikh Adama Gueye sànni mbiram daal di jëmmal mu gis fa Bamba mu rëy Cheikh Bamba naa ko foofu ndeysaan eh! mu gis fa Cheikh Adama Gueye mu gis fa Cheikh Adama Gueye mu gis fa Cheikh Adama Gueye mu gis fa Cheikh ku sopp Cheikh Ibra Fall mu gis fa Cheikh Adama Gueye mu gis fa Cheikh Adama Gueye mu gis fa Cheikh Seex mu gis fa Seex Adama Gueye ah. est-ce que dal di ca mu wan ko Bamba mbër mu rëy ba naan ko foofu waaye yëg nee na keroog tuuti kon mu dem est-ce que bi lëmbiram te kenn du mos ci baatinam lu dul ca bis ba ni texe jaaraama Seex Ibra Faal jaaraama lapp bi Bamba taal yaaram leeral nga diina yaay kamaal faal njëga yaarey pexe si xibra faal si xibra fa jugee la jàll Cees ah. fekk fa sëñ Abdoulaye yaqiin ma fa Cees ba fa jugee la jàll Cees ku ñëw ku ñëw mu duy la ba nga fees diggante nit ku ñuul ak nit ku weex ku fëxe fa ngay mexe di wéy si xibra faal lam si xibra faal lam yow de yaa tax ba Abdoulaye xaar taxaw ci buntu di xaare woyof lu bay lekk daqaar ngir bëgg nga xam bamba mi joxe ba mu tànge maam cerno wuy ji <laughs> kenn daabul cerno biraay <laughs> mbàkke ya di ndaamam ah. daaru cerno doy nga ba mu tànge maam cerno wuy ji ndar kenn daabul cerno biraay mbàkke ya di ndaamam daaru cerno doy nga kan ba mu tànge Mbàkke mam Cerno wuy ke ndaamul Cerno Birahim Mbàkke ya di ndaamal daaru Cerno doy nga ey ma bu tànge mam Cerno wuy mami borom daaru doy Mbàkke ya di ndaamal daaru Cerno sopp noo rey ni ma bu tànge mam Cerno wuy ke ndaamul Cerno Birahim Mbàkke ya di ndaamal daaru Cerno doy

cerno wuy ji ndar mu yegg seen nduru gayndeg baatin cerno doy ndono ay ba mu tàngee maam cerno wuy ji maami Cheikh Modou Kara ak cerno borom daaru cerno doy ngano maami borom baax Mbakke maami Cheikh Modou Kara borom Tuuba ci ngooni est cerno saani maam cerno borom baax sa maam ba mu tàngee sëñ Tuubaa moo yabal Cerno mu ñëw Ndar ba mu fa yegsee nduru gaynde ak baatin Cerno doy nga no sëñ Cheikh boo gisee ma def noonu mhm. dañoo mën ta wax sëñ Tuubaa ci Ndar mhm. ak bureau beeg lépp rek te mën na wax naam ndax laataa sëñ bi di ñëw fii sëñ laata sañ bi di ñëw fii maam Thierno la njëkk yabal mm-hmm. Mm-hmm. mu ñëw fii dëgg la maam Thierno nag keroog bi mu fi ñëwee def na fi ay yëf mm-hmm. yoo xam ne moom moo leeral lépp ndax bi mu ñëwee sëñ bi Tuubaa dafa ne bii ma lay jox bu ko bu ko teg ci loxol kenn ku dul gouverneur léegi nag bi mu ñëwee mag ñi bëgg koo naxasal noonu rek comme tubaab bi fi ko bëgg nax nii rek jël lettre bi jox ko kii ndax dañoo fekkoon muy dalo mun leen suñ soñ ku ma yónni waxul lool de dafa ni ma loxoog loxo yedd yi bi yedd la wax waaw loxoog loxo rek indi fa coow lu rëy nag si la <laughs> tubaab bi dégg bruit bi daa di génn daal lu xew fii bi mu laajtee lu xew fi ñun ko Ahmadou Mbacke mi ngay wax ni rakkam ji moo dafa am ndaw lu mu fi yónni moo ñëw bi tubaab bi ñëwee ne ko yow yaay kan mun ko man maay maam Thierno maay Thierno mhm. ki ngay convoqué boobu ba léegi di wax ak moom moo ma fi yebal fii sama mag la nag moo mu yónni ma ñëw dafa ne ma lettre ma teg ko ci loxo mu tàllal palaat mun ko déedéet yeddi yeddi rek la wax loxo ak loxo léegi nag moom maam Thierno moo njëkk jaxe sa xelu tubaab bi moom ndax moom bi mu fi jógee tubaab bi nga xalaat sëñ tubaab mi ko yónni nu mu war a toll ak maam Thierno ni mu doonee góor yàlla ak ni mu fi indi ak assurement bi mu fi créé nii kon ki ko yónni nu mu war a toll te maam Thierno moo ëpp sëñ tubaab jëmm waaye booba xelu tubaab bi la njëkk duma rek ba noppi nii ci saayir nii rek barke borom tubaab mbàkk waaye lépp nag sëñ tubaab ma ngi ko defoon ci mbubam ma rek sëñ tubaab ma ngi ko defoon ci mbubam rek kenn moom balay si bëri sëñ mbàkk maram jërëjëf sëñ Cheikh suñu xol sedd na ñoo gën a bëgg suñu seex suñu xol sedd na xam nga nag sañ Tuubaa mhm. mun ñu ko sax waxtaane ci ay bis ba mhm. ñu koy tënk ci heure ak minute waaye daal li nga xam ne xëy nañ koy dañ dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci dañ ciy barkeelu mhm. ngir màggal gi nga xam ne day màggalu ñaar raaka yi ren ak ni mu demee Saint-Louis yi am xalaatu ñu day def lu mel nii jëm ko jébbal ñi nga xam ne ñooy soppe yi waaye wallaahi de ñu ngi lay seede ni suñu xol seet na guy. noo gën a sëñ Cheikh noo gën a mhm. mhm. ñëpp ñi nga xam ne mhm. na. noo gën a bëgg sëñ Cheikh ñu ngi ñaan ci barke na sa wér. amiin barke di suñu papa ji nag di sëñ Moutala Seck. suñu xol seet ndax waxtaan am na solo. ndeysaan ndax yi da si am solo. borom baax la ku baax ndeysaan am solo ñu lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm ci nangul bi nangu bi nga nangu invitation bi waaw bu ko defee na lay bàyyi nga nuyoo euh, nga tàggoog mm-hmm. ñi nga xam ñu lay seetaan rek mm-hmm. waaw suñu xol seet na loolu nag mm-hmm. barki borom Tuubaa fa tabaarakallah sang bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant mboolem ñi jotaay bi jël cant googu nag di koy teg fu loxoy sëñ Hamidou Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada waaw ñun Cheikh Mouhamadoul Mourtada day day day suñ lépp ndeysaan Cheikh Mouhamadoul Mourtada sañu noo toog ci jotaay tudd Serigne Touba te duñu ko jox la ñu tudd yëpp jébbal ko nag. waa kër waa kër Cheikh Mouhamadoul Mourtada. dëgg la de wàllu ah, waaw xam naa beneen yoon sax. am na marché bu ma def sëñ Mourtada. ndeysaan uh-huh. boo xam ne bëgg nañ ko yaatal. incha allah naa ne beneen yoon danañ fexe ba. incha allah gën ko yaatal ñu ngi sant mboolem ko fi la sant ndax mm-hmm. yow boobu ba léegi yaa ngi daanu rek. Mm-hmm. wane nga ni sëñ Tuubaa rek. nekk képp laa bëgg wane nga ni sëñ Tuubaa ak maam Cerno daal. wallaahi fees ni sa xol. ragal pété day xañu wërsëg di ñaanal nag sama waayu bopp mm-hmm. dama bëgg xas yi mu yëkkati fépp foo xam ne suufa nga fa ci àdduna mhm. yàlla na fa taxaw jàng ko jërë ñaanal la waaw fépp fu suuf nekk rek ci àdduna yàlla na nga fa taxaw jàng ko amiin barke sa xaram amiin barke sa xaram ku jërë ñaanal gërëm nag sa caméraman yi nga xam mhm. ma dàq daan nga ca ma dàq daan ñoom ñoom di daanu moom doy na waat ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñaan suñ borom defal ñu saxatu daare ni amiin barke Serigne Touba ñaar rakk yi mu def ba tax suñu xol yi jóg ba dëgmal ko mm-hmm. yàlla nañ ko fekk ay junni junni amiin barke borom Tuubaa ci barke ndax leer na ma ne bu màggee liggéey sëñ Tuubaa rek la jëm yàlla na raw télé yii fi nekk yëpp amiin barke Sara Fall amiin ci barke Cheikh Mouhamadou Mourtada amiin Pape amiin tabarakallah sëñ sëñ si bi ah neex na suñu xol seet na <laughs> ah, <laughs> sëñ Cheikh <laughs> yow na lay bàyyi ko teddi balay sa ndaxte dara ñor la du xasida yi ndax yàlla yow dañuy dañuy damay ñëw parfois bërëb ba nga seegi kafe gu bëre ndeysaan ñu man am naanal boole si di ma teral a da ngaa baax boole si di waxtaan seeg man kenn la si man moom moom kenn la si man man damaa bokk ci famille boo xam ne ñëpp ay jànkar lun ñëpp ay jànkar lun ñuy taalibe Sëriñ Tuubaa nag man nag ma doyloo no maam conno Birahim daamal daaru mu sama lépp mu xam ko ci man ba fu ma fekk nag dima teral dima teral ci loolu te man am ku dul Serigne Touba man keneen ku nekk doo am jël Serigne Touba képp am fu ma toog fu ma toog moom fa laa koy wax ñëpp xam ko ragalu ma si dara doo du ma si nëbbu dara moom moom moom képp rek moom képp dong rek laa bëgg waaw Serigne Cheikh bu ko defee lay bàyyi mm-hmm. nga tàggoog mbokk yi mm-hmm. ñoo ngi gërëm bu baax a baax euh, Mandiaye mm-hmm. moom sa aw la wallahi moom waaw moom moom ànd nañ fu ne bu jàngee rek nga xam ne moom jàng rek fu ne ànd maa ngi ko wax léegi suñu wër laa naan ko kii gis ah? nga fi nga ko gis nii nii ah, ànd noonu fu ne ci xasida yi ah, ànd noonu fu ne wax dëgg yàlla xam naa yëfi yëfi yëfi ñoom seex ñang yi rek ñoo ko xaw a kii liggéey bi la elage <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñu cameraman bi euh, mm-hmm. nobis mm-hmm. euh, wëz ñu ngi lay ziar bu baax a baax mm-hmm. taxawaay bi disponibilité bi yëpp bu ko defee sëriñ moom tamit ku bëgg sëñ bi la parfois day day jógee këram la ñëw sama kër barke Cheikhul Khadim Touba Touba sama këram ba sama kër ma jógaat sama kër gunwaat ba kër ay taalibe ay taalibe ñu mel noonu sëñ Abdoulaye moo ko waxoon nag sëñ Abdoulaye moo noon ñaari taalibe ñaari weñu xuur rek lañ buñ dajee dañuy jonjante rek bu yàggee ñoom ñaar ñëpp te gi mooy kenn ku ne nga dolli sa morom xëtt sëñ rek wallaay ndeysaan moom daan na fi yëpp tur bi tur bi naka la. sëñ Moussa Ngiraan daan na fi yëpp ah, ah, bëgg baram ndeysaan dëgg la bëgg baram ndeysaan waaw lu ma am ci daraje Moustapha la kaame man nag man nag man nag li may tàggoo leen rek la mm. sant naa suñu tubaab baax a baax ah. waaw di leen jox nag yeneen numéro ndax fas nañ ko def mm. ci yoon yu bëre maagal mm. gee ngi ñëw incha allah waaw ñun nag ñëpp lañ fi nekkal waaw lépp lu xew lu nekk rek mhm. daan xool na lan lu mën a defee daal mhm. ba xool ñëpp di féex mhm. bu sobeek yàlla ak suñ tubaa bu ko defee suñ cheikh yaay xool lu la neex nga tàggu lu la neex. dëgg la rajaxe fii. ñu <laughs> daanu fii sant ah. nañ sant nañ baax sant nañ sant <laughs> sañ Mourtala sant gars yi fi nekk yëpp rek cameraman yi wax dëgg yàlla di sant suñ Mandiaye mi nga xam ne mi ko waxee léegi ànd nañu fu nekk leen di sant di leen gërëm di gërëm mboolem kuy bàyyi xel télé bi mhm. ak suñu ay kilifa suñuy waajur yi ñu leen di siyaare bu baax a baax di ñaanal yàlla suñu sëriñ mu yàgg fi loolu suñ Mbàkke Madina ginnaaw ban ko ñaanalee Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ak suñ Cheikh Jëmm di ñaanal mu yàgg fi téwét suñ màggat mi ñong koy ñaanal di mhm. ñaanal mu yagg fi lolou tan ak wer barke sa Xadim mhm. ñëpp buñu jégué fi insha allahu rabbi rek ñi ngi wajjan nak fasiyene wajj magal gi nak insha mhm. rabbi ndax magal gi kep mo fi dess fi mu ne nii jërëjëf contane nañ ba ku yor bakkan war nga ni jaajeuf borom tuba. ku yor bakkan war nga ni jaajeuf borom tuba. ku yor bakkan waxal jërëjëf mam borom tuba. ku yor bakkan war nga ni jaajeuf borom tuba. Sëriñ Ba maam bàyyi kenn ku ko kennal mu kennal la sant Serigne Touba ku yor bakkan war nga ñu jaajëf borom Touba ñu na la yoonu Serigne bi yow sa ay bi daane Seex Saaliw Mbàkke sang yow sa ay gidaane ana soppey Serigne Saliou oh, yow sa ay gidaane santante moo ci des gore leen sant Sëñ Tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Tuuba ñu naan la garab warta bañ suuxat murit warta bañ digal ku dem tooli xel kom jaaga am nga yoolu Karbala ku dem toolu xel kom jaaga am nga yoolu Karbala ñu naan la waylun fa waylun fa waylun ku ci bañ yoonu murit gisuma la aljana nanu ànd ak Serigne Touba. Ah, waylun fa waylun fa waylun. bañ yoonu murit gisuma la aljana nanu ànd borom Touba. gisuma la aljana nanu ànd ak Serigne jërëjëf Cheikh Saliou <laughs> sang ba ca max waa danan ka mooy waaja oh, dikk leen tey jébbaloo dikk leen tey jébbaloo dikk leen tey jébbaloo jébbalu oh, sunu waaja oh. kii borom jam ñaange Cheikh Saliou ba ca max waa danan ka way mooy leen yeewoo eh. woo daw si leen ak ah, sëriñ Saliou Mbacké sëriñ bi sëriñ bi defal ñaan defal ñaan rek